الله أكبر الله أكبر assalaamu aleykum ngene i sutornayo ta ref ramadan al mubarak o ngoolo mayu yirmante ndax yonantane sallallahu alayhi wa sallam a fop a sax nda ata daka ke refna fanweerane al awaluhu rahmatun wa awsatu maxfiratun wa axiru itqun min annaar kon fo laylatul xadri fop a ref kam mane fofo njiriñ fu lakas fop yelasam rooga fi'in mene daaru salaam ne siñ murtala a ñaanit ɗuna no xat mu um ne gara saax re a ref saax xam-xam saax yirmante eh, saax barke fa xiiwal nanana do dek wa a ci o sirno api ay ciig eh, in way siyaare a o xem ɓaato njegluwa no xaq ɓaato yeesalayo taalibe in futuuɓ in mbokatin fu taalibe ke fop fa siyaqa eh, ke in way njegluwango e ngeɗayo yitam teranga ke fi'ona no nqoolong ne anda million million uk e fu we andoona fop a ndeefandani no ɓayof foppo fiyatin no pindeef ke sam juuf tam i a paax to tayoon fu ka xomna kiid teemeed fa fanweer rooga waagaani a sañaani e i siyaare yitam a siñ xaadim fu ndeɓum fu teddu ne andoona a naaftayo a kaamila ke no fu jaka bo ta jam fa salaam mbegaayo te fop fu culeet fop ngeɗanayo den a a ciig Eh, nañ jiit siñ xaadim fa soxna jaara yin soxna mbakki yin siyaare a itam fa soxna ke i eh, ngaje o eh, siyaare a itam a ah, ustaas ke ndefanin na siñ moodu jon siyaare a tit o in siñ maamud siyaare a tit we daaray kaamil ndefanin na siñ masamba juuf siyaare a koy a siñ babacar fay a sëñ Ousseynou Sène fa Ibrahima Ngom e, te nde i mbaato mosluwa keenale paax to ngeɗana roog fa in fa teddune e ta jigdina pe ake sëñ Babacar Ndiayo ka yoɓo inoor no fo ngolum nana o ten o a teewi daame en we siyaarano paax fo we na yoonit na fop jawrin e, sëñ Moussa Sarine sëñ wa yitam siyaare Eh, kelfa in ta refa seigne alaji eh, in way siyaare an to ngeɗana barke no sernoxe eh, yala sami kene na yoɓwa saaxre rooga fagɗatin bo xiidole i njofanna o yala sam siyaare madinatul manawar o tuleeru tedduxa mana wonduna mboolo ma mbogote makkatal mokaram kaaba sarif tedduna e mbolo mambogo nuwa andona le ah, ta wafkaniyo ah, ah, fo bereb ka eh, a ngaro i siyare atno barke um e i mbat le o ke a xajitna in no lang ke itam na in njiriñ ta ref i mbaɗooxno ndax o yaaloxe subhanahu wa taala ka lay le wa ma qalaqtu jinne wal inse ila li yaxbudooni bindima jinne fa doom adama de fu ɓoñta mbaɗo xo xamo kon i mbato ngorgorlooxo no faɗa xa roog te daku lay manam hadis xudsiyu lay le ahbudo laha ka annaka fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka manam yang fa ɗoxan bata nanta wo wo an ndax sa borom subhanahu wa taala o ga'angenan Eh, nu o faɗorano itam manam o ten no xooxum de o xey ga'ang kon i mbaato ngorgorlu wo na diini nene ando le kene i njegna sang in fatidu nene de seereer a miñaaw me ndam o sey jeg no xe nu seereer e kon ndag o lem leya o sirno xe moom in seereer i njegate manam a taf deerum nda roog o yaaloxe subhanahu wa taala binna roga hiwalayni ni tafokattinna fa in i joprin roga hiwalayni ti manam i gimno lool rana rana rana garna i gimnoɗa jege sik salam nga nga nga ɗuno mbelu um faak soxane gar i ngottin jiktin fop in walay a sim in we ngeɗa o roog yala sam ta ñow ka xumna kiid temed fa fanweer a yonin i yoon fo ten te yitam ɓeer nene fagun faak a jegay ka yonantane laynan a dis aɗik kene de ka waray waro doom adama i ndeeta qindangaan ɗeeta fagun faak xeƴa a waray waaro in ka ta layle jang alqouranul karim ga manam a yaake ke na layaayo laam ka ka andoona a yeemaangi ka andoona e o jox dongo jeg solo a layana sifanit ka andoona a yeemaangi to o sañɗanga fop a njofo ndi koy o yokoox ta waarong nda mo sañɗanga a aya ke andoona le laaya ke andoona le manam paax dong te ta lay yo wiin we fop a ndef no kanga laaya ke andoona le manam kene koy te ref sefaana o sañɗanga manam culiit ke mat keerno kang na manam ndiiki ni rek yeemoox laam o sañɗanga culiit ke fop manam mat kanga ndiiki ni ɗika ndeer ten refu manam oɗe taqidoxe o yontegona mirin lool ndiki nen ndeta ndet ndeta ndet ndeta a ret alaxira to anda wo dabik kan te leyinge a warangi o war a disa daku ina ndeyango ndetan armel o yanga reta ga'awe mbonunawo maaga to ta leyanga o reedu fa den to ta leyanga wo otam kay me a fiyangan manam ta yokang ndero fa roog o ɓaat o fatle koxa kon o serno xeɗe ka leya ina yo mboɗonu ke jeg na mbaɗoxo a roog to liggéey ko to njango alquran kene te leya in mutoluna to ngaƴo ndik no kiin kon ti yene yelasam ta nam patala inak ne mbexey na ngorgorlu nanano koy to ngana na qeeñ inake yitam wala esim a fi'angan kene a fogay ke andona ten i njotle a wenatuk a yitam yalla sam roog den tande ta fa jam a ngara fa jam e ndiig nene yitam i njufanna laam xeƴa may me wa a qooxooxuyo ndax o sirndoxe comme ka a qoox dong a ƴufana e kilifa diine ke a qoox dong a ƴufana in wene yo ko sirnoxe leya ina njangik to liggéey ko liggéey ko e, ngir roog a fiyangaan mbexey nayo liggéey ko liggéeyik nayo ndiig nene yalla sa sirnoxe fo ngolong ne e yala sam o fiyana in ndiig ne a xiiwale ku yala sam ta gañ na barke of iyo i ayo fop koy i ngaƴe o leŋ santayo fop ka tiye daaw ñaal te taxu um, bugo raɓan waxtaan re uh, um xoxot a waxtaan fa i mbaaw ndakoox no pin assalamu aleykum wa taala wa kàddoom gii. ku ko ku ko dégg. nga ma ci yàlla. nga yu gudd. fan yu gudd. ak ngi siyaare mbokki tarixa yëpp. kon mu ngi siyaare mbokki tarixa yëpp. Tijaan. Tijaan. Xaadir. Ñaseen. mbokki jullit yëpp. mboolee mbokki jullit yi ñëpp. nga xam ne ku ci ne. fi nga nekk tey. fi nga nekk tey. set nga fa. set nga fa. kon ñu lay ñaanal ci barke sa maam. kon mu lay ñaanal ci barke sa maam. yàlla bàyyi la fa. yàlla bàyyi la fa. nangul la sa liggéey. nangul la sa liggéey. ci daraja mag yi. ci darajay mag yi. daraja yonent bi sallallahu. ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa kon mbokk julit yi. kon mbokk julit yi. mbokk yi nga xam ne ñooy sa bokk bokk. mbokk yi nga xam ne ñooy sama mbokku mbokk bopp. dana seere nga muy doon séeréer ñim àndal. santaanoon. nee na mu ngi leen di sant. siyaaraanoon. na di leen siyaara. xedaaroog. nee na di ñaan yàlla. yaasarooga na in yal na leen yàlla nangul liggéey gi. mu ngi ñaan ci yàlla. te indi ñu toog. asumaay lool tàng na lool waaye mu ngi ñaan ku ci toog ku ne yaasam ci yal na bés penc elek naaj ga yaasa yal na la ci yàlla musal képp ku ci toog na daraja yonent ci daraja yonent bi ci barke xaadim rasul ne mu ngi sant bu baax jiitalaati fa di ci jiital seex yi ci kër gi nee na ci jëmub sereer Eh, ñu sant yàlla bu na sant na bu baax. ndax kat xane. ndax kat tey jii. ngotee fen. nee na jëluñu fen. ngotee xaaga fudd na nee in kaamir. nee amut fen fu jël ku ñu wàcceel ay kaamir. naa du wàcce. refee naafila. du naafila. kon fop a def nu njaboot. nee na kon lépp wàcce gaak naafila yëpp doon ci biir njaboot gi. kon nee na mu ngi sant yàlla bu baax. nee na bu fekkee itam de man lañ yónni ci seen xeet wi di xeetu séeréer gi kon de nee na xelam dal na. ndax de li ko waral moo di. wax dëgg yàlla liñ doon. nee na ah jël na de. digaay koy ka na am na nag lu sëñ Saaliw daan wax sëñ Saaliw ka la yegg na sëriñ Saaliw wax ne nee na bu ma àndee ak yéen nee na di leen xool deetaa di leen xool ba départ ba ba ba sori barata ba sori lool nee na wëñeku deet ga atima nuun xool gisatuma leen um woñtu nee na damay wëñeku daab ida nuun naa na daa di leen dab siwaat nee na moom nag moom sëñ Ismaila moom mu ne moom moom nee na dafa wax ne kam yoon ka na damay ak yéen yoon xanu nee na ànd ak yéen nu ndee faam nee ñu topp ko nee na ñu topp sarax ajjana amin nee na ñëpp noonu la def nee loole day la seer ndele incha allah nee na incha allah nee gi ko topp a hum diggales nee na topp de li muy digle aju fa tere es nee di moytu lépp lu muy tere inchallah nee na inchallah mi faten ba ajana nee na moom ba ajana góorgóorlu a paax nee ngeen góorgóorlu bu baax ndax eh, besande paafay ndax bés gii tey paase na juma li paafay nee ajuma paase na juma li de nee na paase wut de Eh, kon nag jublu ittee nga ni ngeen di jullee ajjuma ci bésu ajjuma ji nga xam ne ajuma ji da gis juma ji yëpp fees ci weeru koor wu tedd wii nee na waay waay góorgóorlu leen ne yeen doomu askanu séeréer ngeen yokk a góorgóorlu julli kayit julli yi yiit na ngeen góorgóorlu ci astagfirullah astagfirullah la ilaha illallah la ilaha illallah allahumma salli ala sayyidina muhammad allahumma salli a yooɓay lool nee na loolee lool képp ku damun nee na ko ku ci jàpp waage teliom ayo def lim bu sakan bari lool itam besan nee na bés bu ci ne o fi téeméer ɓetti nee na nga def ci boob juróomi téeméer o naafiyanga nee na boo naafila. ñaati daa di selmal. nee na def juróomi téeméer. bu laa ilaha illallah. astaghfirullah. def astaghfirullah. julli na yonent ne. julli ci yonent bi. waa nga nga téeméer betti. nee boo ci mënee teg itam comme juróomi téeméer ba léegi. waxi sanga. nee na boo xëyee. fi téeméer betti. boo xëyee def juróomi téeméer. tarif tarif muy junne. Eh, jërëjëf sëñ Touba. jërëjëf sëñ Touba. téeméer bettit. nee na juróomi téeméer. nee na ci suba. ci ren. ngoon. incha allah de. incha allah de ku ko def ku ne. kon de na nga xam ne. boo retaa fen de. bala ngay dem fenn. ga kay ajana na da nga gis sa ajana. incha allah. nee na allah. ok. nit. roog de. kenn mënu koo nax nañu góorgóorlu di jaamu yàlla di def lu baax bàyyi lu bon adduna alaaxira rek a ciy topp fii ñu toog nee na ñii suñ kanam du alaaxira lañ ne kon nee na bu ñu nax suñuy bopp nee na ku foog ne doo fi jóge nee na bu boobaa nax nga sa bopp. mbaa o jéggi siraat. walla nga jéggi siraat. mbaa o ref bàmmeel. wala nga dugg ci biir bàmmeel. bu bugaleel. nee na ñu di la fa bugal. ah woon fi un xooxam. ah nee na bu boobaa yaa ko def sa bopp. kon góorgóorlu. kon nanu góorgóorlu. xajim xooxes de. nee na mu di ci jiital boppam. góorgóorlu. nee na ñu góorgóorlu. di def lu baax. moytu ëppanu. di moytu lépp lu bon. sëñ Abdoulaat Kalaye. sëñ Abdoulaat daf doon wax ne. naafeq. nee na naafeq. jëlee. nee na paase wut. fi fiyaaponu di def lu bon bëgg paax te bëgg lu baax sëñ abdoulaat lay sëñ abdoulaat wax ne ku fi deel nee na ku ragal safara xatu fiyaa paax nee na del def lu baax nga sadaar fi deel waaye ragal safara fiya fiyaaponu di def lu bon sëñ abdoulaat laa sëñ abdoulaat nee na naa feq naa feq moom ta loolu sëñ abdoulaat lay sëñ abdoulaat dafa wax ne yiro dara nee defoo dara da fop nee na raw ñëpp rooga wayaani nee na yàlla mën na ko fi an kenn waaye du ko defal kenn kon nañu góorgóorlu eh, xane tey ku eh, ref na jega sëñ Ismaila ku ne am na sëriñ Ismaila sag naa boo feet sagante ëllëg o fetes wel no mbooloo na ñu fetesu la ca mbooloo ma dara jariran loolee de dara jaroko yàlla ñu ci yàlla musal moom de xeexut kenn xeexut kenn moom jam rek la bokk jam rek la bokk jam nag jam nag ku ko bokk ku ko bokk dëkkandoom dëkkandoom ci lay jiital moom la ci jiital kon demaa boog dëkkandoo yi kon demaa boog dëkkandoo yi xam ne xam ne sëñ Ismaila de sëñ Ismaila de reeroo wut na reeroo wut ak kenn reeroo amut reeroo amut ñàkk waxtaan ñàkk waxtaan rek a mun a am kon nag kon nag nee na damaa bokk. kilifa diine yi ci dëkk bi. kilifa diine yi nga xam ne ñoo weer fii ci dëkk bi ci tund bi. ñu xam ne Serigne Ismaïla. ab taalibe la. ab taalibe la. taalibe Serigne Touba. taalibe Serigne Touba la. taalibe njabootu Serigne Touba. taalibe njabootu Serigne Touba la. jam rek la bokk. rek la bokk. kon yal nañu yàlla may jàmm. kon yàlla may jàmm. maa ngi na mu ngi ñaanal waa gouvernement bi ñëpp. yal na leen jàmm. yal na leen yàlla may jàmm. réew mi jàmm nekk fi. ndax jàmm rek ndax jàmm rek ci la lépp xëj. kon nag ñoo ngi ñaan yàlla. kon nag mu ngi ñaan yàlla. yal na yàlla def fi jàmm. yal na fi yàlla def jàmm. nawet bii ñu dégmal nawet gii ñu dégmal. yal na yàlla def ci mi bari lool. yal na ci yàlla def ndox mi bari lool. ci barke Sëñ Fallu. ndox mi bari lool. ndox mi bari lool. jàmm am fi. yal na ko yàlla def. weeradi gii nga xam ne moo fi newoon te jàll. na dem ba faw. na dem ba faw. bu ko fi kenn déggati. sant nañ bu baax sant na bu baax. góor ak jigéen góor ak jigéen mag ak ndaw. tudd Daaru Salaam yëpp. waa daa tudd Daaru Salaam ñëpp. moo ngi leen di sant. moo ngi leen di sant. weeru koor ci weeru koor wi.